على ممالي ولا سوسدي له كل حال من هدايا مدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalul ak cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Serigne Touba tey ci kaw suuf ataala llaahu baqaahu wa ayyadahu wa nasarahu kon ci ndigalam lañ ñëw fii di leen jet kàddu yu bàyyi ko ci moom ci këram gu tedd gi mu nekk ci biir nga xam ne yërëm ko ci coono bee tax waaye dara doy ko ci woon lu may toogal boppam ñépp gis ko ndax li xew tax muy kàddu yoo xam ne nag mi ngi koy jëmale ci bokk jullit yëpp ak bokk taalibe murid yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii weesu di gan ak rasulullahi sallallahu alayhi te Serigne Touba fonkoon ko lool daa ko dundalal boppam ak jëkk ahiyatu mawlidan nabi min asasi ba ci njaareem kon ñi ngi ñaan lim ci daale ci biir jës fu ñëpp jàng ko dégg ko te xam ne mën naa yéwénal suñu mbir ci àdduna ak alaaxira la ca dolli kuwaat mooy kàddu yu masaw yëm ci mboolem koo xam ne rek loro nga ci xéewal gi nga xam ne suñu borom moo ko wàccee ci kaw suuf mooy taw bi waaye rawatina nag ñi dëkk Touba sëriñ bi nee nag képp ku fi dëkk rek te ndox mi laar laal sa kër wala mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu di ko ànd ak yow bu baax a baax a baax ngir xam ne bu soñoon képp ku dëkk ci dëkk bi rek jàmm nga fi nekke waaye nag nañ xam ne lu baax moo dul yomb te Touba nag moom la sëriñ Touba waxoon ne daa waxoon ne ku fi sam xel indiwul saw xel dina la fi indi kon xam na ne ñëpp dañoo gàddaay seeni dëkk. ngiru tumuranke ak jaaxle ak bëgg dëkk ak sëriñ bi kon bu sañoon ku fi dëkk ku ne ci jàmm nga fi nekke ci teraanga rek nga fi nekke waaye yàlla suñ borom ci boppam nag moom ay dogalam te kenn du ko xëccoo moom mooy set lu ko soob mu def ko te xam ngeen ne moom moom borom liggéey bii di sëriñ bi xam ngeen nekk na ci Gabon samaaniya xijajin illa qalilan lu jege juróom-ñetti at muy sottu ki ci ab taw kon loolu ku ca xool rek lu metti metti metti da am xolub jëm ko muñ waaye sëriñ bi nag nee na xam na ne taalibe yërmaane jëm leen indal mooy la sëriñ Tuubaa waxoon rek walwaccu maahil xuma mi ba kenn du fi dikkee njàqare moo tax mu ngi masaw bokki taalibe yëpp ci li xew ànd ko ñoom ndax lii kat xeexoo la boo xam ne bayuut kenn bayuut kilifa bayuutub taalibe bayuut kenn ñëpp la dal ci kaw ndax kenn ku ne lañ ci yëgal sa bopp mën naa naa mën naa wax ne man mii jot li kàddu yi sax dañ maa mujj jël si oto waaye sama oto sax mënta génn sama kër kon ñëpp la laal laalu ka gën a suufe ba ci gën a ka gën a kawe ñëpp ko yëg mm-hmm. jumaay Tuubaa ji li ko wër gis ngeen ni meloon kon mbir la mu wàcc moo xam ne suñ borom nag boo koy ñaan la ma doon wax démb rek te suñu bilaat waxoon ne yàlla boo ko ñaan la nga gën a bëgg day seet la nga gën a bañ boole ci kon nag sëriñ bi nee na taalibe yi xam ne mettit bi nekke ak tumuraanke gi ñu ak jaaxal gi ñu waaye nag bu ñu xoolee ci jëmm ak yërmaane jëm ñu ànd ëmbal rek nañu wóor ne yàgg-yàgg daañu tàggoog moom kon loolu mi ngi ciy dalal xelum ñépp te li ko ci war fekkoon fekkoon na ko ci waaye da koy gën a dolli dolliwaat kon nañ xam ne sëriñ bi dafa wax ne ci biir lool nag sëriñ Touba dafa am lu mu digaloon taalibe bi muy digle jumaay ji waxoon ne ku ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett lam waxoon ci ndénkaane yi dafa waxoon ne lii ma leen di digal nag fu waa jëm nag fu yóbbaale mooy lépp lu ngeen bëggati wala lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu yàlla bi na ngeen ci góorlu seen kéemtalaay kattan def ci la ngeen la ngeen man ak li ngeen mënut te lu ngeen ci mënut fu ci seen doole yem ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam ko sell te fu ci seen kattan yem ngeen toog xaar fa sa ijaalullahu baada usrin yusran daana trikk nag maa ngi leen di loolu lépp ndimbal loo xam ne bu lee leen fajalee seen aajo yi dañ leen xañ seen gor xañ leen seen xajamal seen xañ leen seen jom tilimal seen diine daane loolu nag la jiitu ci la koy maye mooy mën la sabab la jiitu ci la koy xajee mooy ñàkk mën la sabab kon taalibe yi ndigal loolee lañ topp baraay bi ñëw Tuubaa ndigal la leen topp ba jumaay Tuubaa ji ñëw ba nëgë ni loolay woy moo tax lu mu mën a doon ak lu mën a xew ji suñ biir itam balañ caa toog di xaar kenn nañ ko tàmbalee ci suñ bopp ba fuñ ci man a yem ku ñu cay fekk fekk suñu ca laa waral nag sëriñ bi ci yërmandeem jaatu wax ne liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañ ndax ndox mi ñi dugg na seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mënatuñu jàll mu ne kon yëkkati ne ñaar téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee rek wax ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon dama juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ko waxee ne ko na tàmbali rek fu ñu toll mu toll fa ñoom mu ne kon na joxe ñaar téeméeri million bi ko génnee itam ngir bëgg ñu ñu tàmbalee ko ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi kon sëñ Abiou mu moo Mamadou Fadil mi nga xam ne moo jiite daayira Touba ci kanam dana jox ndigal sëriñ Abdoul Ahad Mbacké sëñ bu mu wax ci turam ndax sëriñ bi xam na ne fekkoon na lañ ci ñu nekk ca joxoon na lañ ci ndigal bi yàgg waaye ña ngi ci woon kon dafa def genn kuréel goo xam ne ñoom ñett ñii ñoo koy seq sëriñ Youssou Diop bu daayira Hizbut Tarqiyyah moom itam mu ànd koog ñoom. ndax baat ma ci sëriñ bi tegal dana ma ñoom da lépp lu jëm ci organisation luñ ci bëgg rek mën nañ ko ba ca ñetteel mooy sëriñ Abdul Ahad Ka yàlla def na ma sëriñ bi di woo fi ko fekk sax yëgoowuñ bi ma waxtaanee sëriñ bi ba noppi mu ne moom kat daa mel ne lu mu noonu sax ko yëkkati waaye dama noonu naa bàyyi ba gis la ba noppi door koo jox door koo woo ko woowee sama kanam laaj ko mooy mu ko dama doon laaj ci ndigal ba xam lu ma ci war a def xool naa ba gis ne. war naa am lu ma juróom-benn fukki millions yoo xam ne dama mënees na ko jëndee ab ceeb ak diw ngir séddale ko nit ñi ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu ñu waxtaan seen bi ba tënk ko sëñ bi moom joxe na xaalis bu noppi. waaye ginnaaw bu loolu jàlle it nag ñuy soñ bokk taalibe yi murid yëpp ak képp ku bëgg lu baax te man cee jëf dara lu néew-néew bu mu ci xeeb dara bu ci yëm dara ndax lottu nit ñi moo toll foofu.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 ndega màggal gi jàll na nag kër yu bari seen borom néewtuñ fa kon nag rikk waay ña nekk ci ña moom kër yooyu ay ak lu kër ga rafet rafet muñ ko a jël aale ko ngir jëm suñ tuwa te xam ne kat yonente ba mu gàddaayee Makka dem Madina muhaajir ak al ansar ñëpp xam nañ ne mu demee dañoo ñii dañoo génn seen kër joxe kon nag nañ xam ne ku def loola itam daa tabbi ci biir loola kon ku am kër goo xam ne nga ko te kenn néew fa war nga ko mën a aale ñaari weer wala ñetti weer bu ko mu jëriñ ñëpp euh, ci biir ñoom seeni xalaat it fu leen mën defal ay tànt yoo xam danañ fa man di nekk ku ku miir sa miir te miir ba da koy denc rek ñu ñu def fa ay ngir ni ñu mën faa ne ndax sëriñ bi ci wàllu bopp moom xalaat na ci lotissement bi mu def ci yoon Touba dana fa jël diir lu yaatu tabax fa ay kër def ko addi Sëriñ Tuubaa ko nit ñi ndax xam na ne am na ci ñoo ne tumaranke leen tumaranke goo xam ne boo leen génnee ci ndox mi ba nawet bi jeexee bu nawet bi desuwaatee fa leen di fekk ndax dañoo dëkk ci xur yoo xam ne du fu nit war a dëkk loolee itam am na ci xalaatu boppam boo xam ne incha allah bu nawet bi jàllee wala feeg nawet bi jeex dana ci juudu tabax fa ay kër yu bari def ko addee Sëriñ Tuubaa kon loolu itam lu ci waay mooy def rek ñan xam ne lépp moom lañ koy defal waaye lu ci waay waaye def Sëriñ Tuubaa lañ koy defal te Sëriñ Tuubaa kat waxoon na ne. كما دفل لومن ما دفل لومن لومن كما دفل لومن ما دفل لجوم كنا لشوا دفل نعم نحن باي جسين توا جوسي خل كن يجي حفر كدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على ممالك